jërë ngeen jëf Guinée gi yëngu démb ak li ko yëngal daanaka ci la yéenekaay yëpp xëy di yëngu ubbi l'observateur journal bi ci xalima ak envoyé spécial am ca Conakry di Aïcha Fall mi ngi ñuy nettali la xew ci réew ma démb président de la république ba fa woon di Alpha Condé ginnaaw fukki at yu mu jiite réew ma ak ñetteelu mandat bu mu fa doon doxal te ñu bari jàppoon ne tegewul ci yoon soldat sa wàcce nañu ko démb yéenekaay bi nañu ci ñeenti waxtu ci ko téye ni la Alpha Condé nekk soldat yi ko wàccee nangu ñox fan la ko denc Le Quotidien nañu réewum Guinée tàggoona ak Condé variant Alpha jeex na ci réew ma waa ju ñu naan Mamadi Doumbouya moo teg loxo ci réew ma mooy nouvel homme fort bu gine jamono ji ñu toll journal bi gis ci ne dëkkandoo bu noqare woon a dëkkaale ci réewum Sénégal moo daanu Les Échos nañu Condé jeexal na ci anam wu triste askanu Guinée bi ñu yëgee ne Alpha Condé daanu na daanaka ñoom ñëpp génnoon ci mbedd yi àndoon ak soldat yi doon nangu nguur gi yéenekaay bi nañu digg nañu ay concertation di ay waxtaan ak transition ci dal bu dul boddi benn benn doomu Guinée Sud Quotidien bind ne coup d'état ca Guinée kii di Alpha Condé ñetteelu mandat bi mu lijjanti woon ba tëye ko du ko yeggale journal La Tribune dollil ko ci ne lu ko daal rek moom Alpha Condé troisième mandat moo ko ko yóbbee la Sénégal nañu li ñu naan jàppkatu jaan jaana koy mujje loolee moo dal président bu Guinée ba woon ndax soldat yi ko coup d'état ba wàcce ko moo leen defar mu di ay force spéciale kii jiite force spéciale jiite nguur gi bu njëkk yéen a kaay bi di xëy na ko teg ci xëtamu njëkk ñuy xam le li ñu def du ab coup d'état réewum Guinée la bëgg tegaat ci yoon état de droit la bëgg ci Guinée Walf Quotidien xëy ñu delloo ci jaar-jaari colonel Mamadi Doumbouya li ko tàmbalee ca Kaboul ba ca Conakry lu ci bari journal bi xëy nañu ko wax Source A xëy di waxtaan ak alkaali Ben Mohamed di commencé liggéey ak Alpha Condé ci wotey présidentielle 2010 yewoon def coup d'état bi alkaali Ben Mohamed ne force spéciale yi def coup d'état bi Condé moo ko sosoon ngir xeex wàllu terrorisme dénkoon ko colonel Mamadi Doumbouya moom colonel bi tànnoon soldaar yi gënoon a aay ci l'armée bu gën def leen ci biir bi Condé demee ba gis ne lii wóorul ci moom ndax doole ji mu leen jox dafa ëpp ca la leen délocalisé ci la coow li tàmbalee li am ca Guinée tiital ñu bari ci Sénégal politologue bi di Yoro Dia mi ngi ñuy wax ci biir l'Observateur ne di tënku ci doxal démocratie di Sénégal njiitam ko nee nañu sëriñ Modou Kara Mbacké mi ngi koy jàppale moom sëriñ Modou Kara Mbacké ni ñu ci xët mu njëkk yéenekaay bi maa ngi sàkku ci sénégalais yëpp rawatina ci murit yëpp ñu booloo protéger njiitu réew mi sëriñ Modou Kara ne képp koo xam ne bëgg nguur jaral na la taar réew mi na nga xam ne deretu bopp lay doon du mooy loosu boroom boroom mouvement Kaolack nouvelle vision di Ahmed Youssouf Bengelou Vox Populi nee nañu samp na ndëndam candidat la ca mairie bu Kaolack ci élection locale yi di ñëw ñi ci mouvement bi muy góor ñi di jigéen ñi di mag ñi ak ndaw ñi ñoo ko tànn keroog samedi investir ko ne ko yaa ñu doy yow la ñu bëgg nga doon maire bu Kaolack Vox Populi nañu Boy Sam di Youssouf Bengelloune nangul na leen ko ba wax leen ne nañu waajal ndax ci fan yii di ñëw dana woote ab meeting d'investiture bu mag jàngalekat yi jàppal tànk APR di les enseignants APR Tribune nee nañu booloo nañu taxaw ci ginnaaw Maïmouna Sissoko Khouma ngir gën a jàppale président Macky Sall démb ci lañ doon def am ndaje moo xam ne fu nekk ci réew mi lab jàngalekat bàyyee ko ñëwoon wuy si may Sissoko Khouma directrice générale agence nationale général enfance ak case des tout-petits fa la ñu seen yéene ci taxaw ci wetu président Macky Sall gën koo jàppale waaye te dogu ba kenn du jugati di dal ci kawam ci kaw loole Walf Quotidien xëy na di lijjanti lii di lee boucle de Kanolaay travaux ak coow li mu jur ci diggante entreprise bi di Ecotara Agiroute ak entreprise chinois bi ñu jox marché ya doore ko ci appel d'offre ba dogalu Cour suprême bi annulé woon marché bi ba ci li jeunes Casamance yi taxawoon ne bëgguñu gis ay chinois ca Casamance lépp Walf Quotidien xëy na ci ba di ñu wax ne mbir la moo xam ne li ci am dëgg-dëgg moo raw foofu li ñu ciy wax ñu wax ci tiis wi dal ci kaw mi ba sëngëm loo ak lu làmb mu di faatug Double Less l'observateur nañu moom champion bu mag ba di Double démb la wuy sunu borom nit la ku doon dund làmb ak di ko dundal ba ne mu xëyee dem ñu dem ci sunu làmb fekkaat fa xibaar bu bi mi ngi ñuy xamal ne moom duubalees ci juróom-ñett fukki tam ci la faatu les arènes nañu samedi ci la entré ci ab clinique ci ëllëg sa di dimaas mu noppalu